nag di seizième édition bi mooy consécration maanaam dem nañu ba sa njobbaxtal ga yéenekaay gi nee na décor ba rafetoon na lool waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa MEDES ak waa groupe promo consulting yàgg nañu leen a xam ci organiser ay yoo xam ne yu mucc lay doon yéenekaay gi nee na Aïssata Tall Sall ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum affaires étrangères moo fa teewaloon njiitu réew mi di président Macky Sall daan nay wax njiitu la ñuy amal di yi maanaam corridor bi Macky Sall jox na na ñi nga xam ne ñooy entrepreneur ñoo war a jël mbir mi maanaam économie réew mi ka développement réew mi daal di ko yoral seen bopp ndax moom jàpp na ne foofee la bi nga xam ne Aïssata Tall Sall daal na ko yëkkati na nag njiitu ma ngi firndeel amitié ak bi nga xam ne dox na diggante mag njiitul MEDES di président Mbagnick Diop moom ministre bi daal nay wax ne entreprise yi ñoo mën a créer li nga xam ne mooy richesse ba tey ci biir journal bi moom président ba ñu Diop daan nay wax ci MEDES bi nga xam ne doon nañu amaale anniversaire am vingt ans MEDES nee na nag li nga xam ne daal MEDES def na ko te ñëpp teg seen bët mooy favoriser li nga xam ne mooy émergence d'une nouvelle génération chef d'entreprise moom njiitul MEDES daan nay li nga xam ne mooy compétition économique wax na lëngoo bi war a dox diggante entrepreneur yi ak nguur gi ngir nag mën a relever li nga xam ne mooy défi bi rendez bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la ci weeru novembre atum 2021 ci États-Unis ñeenteelu édition African Awards yéen a kaay gii di Vox Populi ñu Antoine Diome Ndiaye moom nag ma ngi ñi nga xam ne ñuy entreprise nationale yi nee na nag li nga xam ne mooy secteur privé national bi dañu ko war a dooleel dañu ko war a daal di protéger nee na nag entreprise bii nga xam ne mooy Ecotra bu ñu xoolee nag ba mu dee loolee catastrophe bu rëy la yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall samedi ñu génn inauguré na li nga xam ne mooy usine ndox bu Kër Momar ñi nga xam ne ñoo ngaan ko SONES nee nañu ndox yi nga xam ne askan wi ñoo ngi koy am loolee lépp dina jeex njiitu réew mi inauguré waale li nga xam ne mooy domaine agricole communautaire ba yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko njiitul Pastef moom nag ci week bi amaloon na ay visite fi nga xam ne mooy ci Soumbédioune ak Médina seeti ñi yi daan nay wax ne ñii dañu leen a war a maanaam dañu leen war a doole la yéen a kaay gi di 24 heures ak les échos xëy duñu xibaar naan ñi nga xam ne ñooy opposition bi jamono ji mere nañu lool ki nga xam ne mooy Macky Sall ndax ñoom dañoo jàpp ne dialogue politique bi nga xam ne doon na ko ngawtu ngawtee amulul benn njëriñ waaye nag tëj na li nga xam ne mooy buntu yi dialogue dialogue politique bi ubbi nag li nga xam ne mooy buntuy confrontation yi ndax ñoom opposition bi nee nañu ñu bàyyi mu sedd danañu jàkkaarloo ak Macky Sall yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na opposition bi xotti nañu li nga xam ne mooy nouveau code électoral bi yéen kaay gi di réew mi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu coronavirus bi jamono ji ma ngi gën di yokk ci réew mi yéen kaay gi nee na samedi lu toll ci 529 cas nemmeeku nañ ko fi yéen kaay gi nee na coronavirus bi nag li tax mu gën di yokk ñu bëri ci Sénégal yi dañoo jàpp ne corona bi sax nekkatul ci réew mi yéen kaay gi di Libération bi nga xam ne moom la ñu génn